Pastef dafa créer benn genre phénomène de sous-traitance parce que ñoom buñ ne mobilisation waa Pastef dañuy spontanément dañuy fay paas ñëw jënd seen assiette ñëw taxaw waa PUR dañ koy def mais tey nous dans notre logiciel politique militants yi tey boo leen ne mobilisation suba dañuy def benn nga ni budget ñëw indi ko xalifa Sall comme le Pastef mobilise la plupart des leaders ont trouvé une facilité en disant que non bon voilà comme il y aura du monde on on on se on se prend pas la tête mais ça li xew keroog tax na ba tey taxaw Sénégal on s'est posé on s'est stratégie dëkk bi Dakar on contrôle la on contrôle des mairies on a les moyens de nos politiques on a des moyens de mobiliser on a les moyens de faire tout ce qu'on veut mais simplement on a décidé d'être responsable d'être responsable mooy que on peut plus se permettre à chaque fois politique am on parle de mort on parle de blessés parce que aujourd'hui au niveau de Yewwi certains responsables ont choisi leur camp euh, voilà dafa mel ni dañuy wax il pense du côté est ce que c' est politique. du le discours de Gakou moi je ne le je ne le comprends pas euh, Gakou a parlé comme un suiveur et non. Euh, c comme un c euh, comme un chef moi, de parti c' était un discours. surprenant beaucoup de respect j' beaucoup de respect pour lui mais la dernière fois il m'a choqué Aïda Mbodj m'a choqué. voilà Aïda Mbodj a choisi son camp. <laughs> Aïda Mbodj n'a euh, pas choisi son camp Aïda Mbodj on sait jamais ah Aïda Mbodj euh, bi fi Abdou Diouf nekkee Abdou Diouf moo doon champion après fant Ablaye moo doon Fantomas moo doon le diable et tout bi Ablaye Wade ñëwee mu ànd ak moom gis nañ fi ma carte moo ma caution moo musóor xawma ma lan euh, jóge fa nekk doomu ndeyu Macky am relation yu poussé ak Macky même familialement Euh, tey mu bëgg jàkkaarloo opposition bi dañu wax ni que Ousmane Sonko mooy seen champion di am un discours comme si ñun dañu contre Ousmane Sonko wala dañu bëgg metti Ousmane Sonko alors que ñun on a absolument rien contre Ousmane Sonko on le respecte. c'est-à-dire aujourd'hui dañu leen di présenter comme ñi nga xam ne ñoo taxaw pour faire du mal à Ousmane Sonko et ça vient de leader de Yewwi. ça va au-delà ça va au-delà. pour ci Sénégal moom mel noonu may mun tey da ngay da ngay toog sax at mi maa ngi lay ñaan wax ji bu ci dugg. parce que yow danga am avenir politique wala coow li coow li de lu buso non mais mais mais mun na si on fait la politique sans étude sans conviction bi yeboo ñu bàyyi ko tey bu ñu toogee place l'Obélisque encore une fois di wax waxu troisième mandat ça n'interpelle pas les Sénégalais ça interpelle la classe politique pourquoi on n'avance pas pourquoi on n'arrive pas à évoluer sur certains sujets et du coowu Khalifa Sall du coowu taxaw coowu ñëpp la et pense que ñun en tant qu'acteur politique euh, tey boo toogee nga ni nga ni nga ni da ngay am une posture alors que xam nañ li ñu ci jublu li ñu ci jublu mooy euh, nan ngay def ba ëllëg bu Ousmane Sonko bokkulee militant Pastef yi votel la wala ah, la seen calcul en train de se battre pour que bu ëllëgee bu Ousmane Sonko bokkulee ñu mën a récupérer les voix du Pastef wala mën a militant Pastef jàppale leen pour ñu am ay parrainage c'est juste cette posture là on ne peut avoir acteur acteur politique de ce rang def des années de combat ñoom am yenn discours yi c'est pas un discours responsable c'est pas un discours d'opposant c'est pas un discours de proposition c'est un discours subversif